roi des arènes Modou Lo daal di nay génn ñëw indi ay leeral ci blessure am bi ñu bëri di laam laame donte waa Pikine nee nañu blessure bi du dëgg moom Modou dafa daw combat bi te yàgg na daw combat bi comme ni ñu koy defee si face à face yi waaye bi yoon moom xarañ loo ñëw na indi ay leeral ci émission bi mu sekkoon nag ak buzz euh, ci émission vidéo euh, ci wàll boobu sax moom Modou loo daal na indi ay leeral ci lu bare bare moom sax nee na blessure am bi ci dernier jour maanaam semaine bu mujj bi mu nekkee woon ca France war ñibbisi Sénégal la daal di blessé wu bi mu blessé mu daal di woo ki nga xamante ni moom mooy médecin wam pour wax ko ne dama blessé euh, te ci aéroport bu France bi muy waaj a dugg ci avion bi la ko laa daal di woo ne ko bu ma ñëwee daal bëgg naa nga xool ma moom Modou euh, ci blessure am boobu sax nee na dafa doon def contact foofu ca mu desoon quelques semaines combat am diggante moom ak Ama ba mu doon def contact foofu ak benn tubaab boo xam ni dafay def lutte olympique tubaab boobu di def lutte olympique ñoom ñaar bi ñu jàppante nee na bi ñu àggee ci tapis bi. loxo bi dafa daal di tarxiis ci loxo bi ndaxte boo ñàkkee tapis bi dafay rattax bi loxo bi tarxiisee dégg na daal am benn bruit ci loxo bi waaye nee na dafa continuer contact am donte sax yëg na ay mettit yu ndaw ndaw ndaw dafa jàppoon ne du lu garaaw mu continuer waaye ba mu demee ba ñibbi fi mu dëkk sangu jàpp julli tëdd nee na daal ci loxo bi la ne ko fii doo ko fi nelawee mu nekk euh, métit bu méttee métti kon Modou Lo indi ay explication ci lool ba mu ñëwee nag fii ci Ndakaaru lundi bi la agsi ci Ndakaaru mardi la dem seeti docteur bi mu bindal ko ay IRM maanaam ñu dem xooli rajo euh, oto euh, maanaam li nga xam moom mooy loxo bi ba ñu ko xoolee ba résultat bi génne la ñu gis ne kat ne Modou ne ko yow mii bëgg ngaa bëri lool lool lool waaye loxo bi mënoo cee bëri te blessure boobu nee na mënoon a doxi ay soxlaam te kenn du ko xam du doon loo xam ni danaan fàng ci biti waaye ci biir la nekkoon nekk métti bu métti métti bi mu demee opéré ko mu daal di am jàmm kon fi mu nekk nii Modou Lo nee na opéré na loxo bi mi ngi toog di xaar mu wér mu daal di commencé waat ay entraînement am te ñii nga xamante ni waa kër Ama Balde yi naan dafa daw dafa ragal nee na ay waxi supporter rek la ñuy wax bis bu ñu jàkkaarloowee ñoom ñaar danañu xam ne moo ragal wala ama moo ragal waaye daal li mu jàpp mooy mi ngi nekk ci ay entraînement yu métte métte li muy daj ama balde daju ko te li mu jàpp ne mooy daan mbër moom mooy entraînement te mi ngi ci bés bu wéree dina delluwaat ci entraînement jàkkaarlook jàkkaarloog Ama kon Modou Lo moo doon indi ay leeral ci blessure am bii nga xamante ni am na ko foofu ca France ñii naan dëgg la wala du dëgg